capitaine lañ am capitaine rek lañ bëgg barki yàlla yàlla xaaral ñu koy ñaan yàlla sàmm ko yàq ko yàq ko ba loxo yàqkat dul yegg xanaa. ak capitaine ak njaboot bi ndeysaan. capitaine. capitaine day ko ñu kii ba suñu xol ñun. ndeysaan ñu laa walaay. amiin amiin amiin ba amiin. ñu capitaine mi ngi noonu. capitaine jërëjëf. jërëjëf. def na la bàyyi bi daan def mi ngi saafante ak taalibe yi capitaine bi ko bàyyi xel nañ ko bàyyi xel kilifa la te fi wéjuram teg tànkam rek fa ko teg xoola xale bu ndaw bi ñu ngi ko tingoom waaye xoolam yëpp ak xalaatam mooy tey ji li muy yëg gis ko noonu gis nga noonu kaay Seydou kaay Seydou kaay Seydou kaay Seydou kaay dama wax nga yow am loo xam da nga koo xam ci sëriñ bi ngay ngay donc tarbi bi kër gi tey ba maa yi looy yëg waaw alhamdulilah mbégte rek lañ daan yëg dong lañu ñu yëg ndax jëmm ji ji jàkkaarloo moom doy na jaamu yàlla ndax li ma waxoon keroog daaw missionnaire la yàlla dafa dépêché cent vingt quatre mille pour lan pour doomu aadama yàlla may ko mu réussir lu yonent réussirul kon c'est un missionnaire ah li yàlla waxoon nag si yonent wax ko ne dina yëkkati fukki jikko loolu mooy mission xawma ma fan de waaye ku nekk si si garanti bi fukki jikko yooyu mu ngi si yow du dem mukk ngor fi yar nga fi xam-xam nga fi pas-pas a ngi fi lépp ngi fi si lépp loo xam ne yàlla digaloon na ko yonent bi pour mu wax ko jaam yàlla yi Serigne Moustapha ngi wis li ma jaaxal mooy Serigne Moustapha li mu njëkk a réussir mooy tarbiya à distance bi nga xam ne moom lay def ci taalibe yi waaw tarbiya à distance boobu c'est pas donné à n'importe qui da ngay nekk borom cër nekk nitu yàlla yi yàlla baaxee la ko soo ko bëggee te yàlla joxu la ko doo ko mën kon nag moom yor gi mu yor arwaax yi tekk si loxoom moo ko may loolu am na koo xam ne kii yàllaa koy dénk arwaax te dégg nga li ko a Cheikh waxoon sa sa sa sa foire ba. ma ci wax jooju. waaw nee na kon est-ce que xam nga li nga réussir si si wàllu ruux. man xam naa ko fi ma toog. loolu rek doy na. Serigne Moustapha ñëwul sama kër si jëmmam. ñëwul kër kii si jëmmam. lan la nu mën a yare. lu dul cër bu ko yàlla jox. looloo jëkk a jaaxal ñëpp. bu mën a jaaxal da di nitu yàlla rek. waxoon na la nga rey de. waxoon nga ma ko daaw de. da di nitu yàlla rek. waxoon nga ma ko yàlla bu doxul dara la. doon doon na mag ñi nag sa yonante ba ba fii tey waaye joxe cër du xañ cër. waaw joxe cër du xañ a cër ku ngi yaatu na lool kenn ku nekk yaa ngi fi di sëriñ waaye lii xew fi rek lay xewe lii xew fi rek lay xewe léeg diw romb ñu ñu nekk diwoo nga ne waaye bu su génnee ñëpp tàggoo si seen sago li ma jaaxal mooy mooy ay mooy sëñ Moustapha ay mbiram amul tànk gannaaw tànk kanam te ni muy yokku mu yim doomu aadama yi waaw xam nga lu tax dafa naxewul naxul kenn lii yàlla digle yonent bi digle rek si la jaar kon nag kooku du mën a am tànk ginnaaw tànk kanam lay am te ñun te dañ koy ñaanal nag moo doon na Serigne Babacar moo doon na Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum doon El Hadji Omar Fouti ba sa yonent ba moo leen doon kon nag lii du mën a jaas lii du propagande lii du pexe